les images c'est des images insoutenables ah ku ko xool tu as mal. rien ne justifie ça. tu vois quelle que université. nga taal ko pratiquement du ma ne ba mu jeex mais li fa yàq li fa yàqu kenn mësul xalaat ne université dina ñaata grève moo mos a am université pendant des décennies mais kenn mësuta xalaata dem taal ay faculté dem taal archive mosuñu ko xalaat. ça fait mal. Mm-hmm. et il y a trois ou quatre jours maa ngi gis euh, un article qu'on produit le, le, le les trois enfin trois intellectuels mm-hmm. mooy ñoom Mbougar ñoom Boris ak ñoom kii. Mm-hmm. ñu wax ils ont fait constat par rapport ak le régime du président Macky Sall ni mu nekkee de 2012 à maintenant. Felwine Sarr Felwine Felwine Sarr euh, ak Boris Diop un excellent texte vraiment wane nañ seen seen degré de seen niveau intellectuel fi mu toll dama ko saluer waaye dafa am ñoom lu ñu occulter parce que aussi booy def diagnostic wax une situation da nga koy wax ci ñaari boor man si je je vous un homme respect ci seen kii parce que damay lire tout le temps ci seen i œuvre wax nañ les dérives du du régime actuel ñuy ànd ceeg ñoom mais waxuñu man. j'étais surpris intellectuels yooyu mel noonu waxuñu ci université saccage bi ñu ci def taal yi ñu taal université en tant que intellectuel loolu aussi dama ko wax def naa benn live keroog wax naa ko ma ne on a assisté tey à une passe d'armes entre deux groupes d'intellectuels les Mougar on a vu après la sortie des Yoro Dia et tout ça. mais Idrissa Seck dégg naa ko ñoom démb. mais ñoom Yoro Dia ak ñoom euh, Cissé bu ADR donc wax nañ ñoom it. ba ñu ñëwee waxuñu ci cause bi de ñoom it ci conséquences yi la ñu wax. Mhm. ñee causes yi la ñu wax waxuñu conséquence yi. man j'ai posé la question simple ma ne où sont les intellectuels yu war a taxaw aussi taxaw ci digg bi wax de manière républicaine qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui nous a amené à là est-ce que ce qui s'est passé là c'est pas condamnable ñoom ñoo ko wax parce que ñoom la nit ñi di déglu parce que on les suit on les écoute waroon nañu wax ne saccage université lii. ça ne devait même pas traverser la tête des étudiants en plus des étudiants moo tax ñenn ñi di xel-xalaat ne est-ce que sax réellement ay étudiants ñoo ko taal parce que man je me vois mal man en tant qu'étudiant xam ne samay archive moom presque c'est mon avenir ma taal ko donc man li ma jàng CI ba cinquième année université FRAS ma gëm ne un étudiant dina ko def mais nag étudiant bi ko def xëñ na li ñu waroon def ci moom moom matewul et loolu dañuy ñëwaat ci encore ci parce que nit boo ko yaree ni nga ko war a yare parce que yar bi aussi régime bi wala état moo am prérogative yar bu yarul étudiant bi bu yarul nit ki s'il ne fait pas focus sur l'homme kooku mën na xëy def lii parce que yaruñu ko loolu si responsable dañ koy imputer état bi d'une part waaye dañ koy imputer aussi ku euh, li tax étudiant bi génn taal te warul ki wax étudiant bi wala ñi wax étudiant bi wala étudiant yi jugandoo seen bopp pour taal ko ison commune commis une faute très grave moo tax quand j'ai vu la passe d'armes entre les deux groupes ma ne ku nekk danga nga xoolee dafa mel ni ku nekk da nga xoolee fi nga far et c'était dommage waroon nañu ñëw def une joxe une posture comme le président Thierno Alassane Sall laa yu ba ba ñuy def point de presse dafa def diagnostic wax li ko indi mais dal ci kaw conséquences yi lu tax ñëw nit ñi def ko ma ne voilà ça c'est une posture. ah oui sa leader daal lu mu wax rek moom. ça va c'est ça le Sénégal malheureusement mais les intellectuels lu tax nga wax nit ñi. maa ngi ñëw wax fi ñu far. mënoon nañu def comme Boris Diop. ma dañoo fi far non si wax. dama dafa mel ni dafa mel maa ngi da nga ni dañoo wax ci fi ñu far. donc kon ça veut dire que wuutal nga leen far. maa ngi farfarloo quoi dama ne. dama ne je je pèse bien mes mots dama ne j'ai lu le texte en entier. te dafa mel ni loolu nga wax waaw. waaw man dama lire le texte en entier lire le texte des Yoro Dia et autres en entier j'ai pas vu dans ce texte où on a condamné les saccages à l'université waaw vu alors qu'ils sont des intellectuels alors qu'ils sont des intellectuels que mm-hmm. l'université a formé mm-hmm. j'ai lu le texte des Yoro Dia et autres j'ai pas vu une seule fois où ils ont dénoncé les dérives du régime en place mmh. ça c'est des faits c'est des constats j'ai analysé de manière très froide et je l'ai comparé au texte du président Thierno qui a dénoncé le régime qui a dénoncé les dérives du régime mais qui a dénoncé le saccage à l'université pour man un intellectuel da ngay wax li am teg ko de manière très froide et puis que les gens en tirent les conséquences les gens en une analyse tu donnes le choix à celui qui lit à celui qui t'écoute mu xam les tenants et les aboutissants li am exactement mais doo ko waxee benn côté occulter beneen bi moo tax ma ne ñaari côté yëpp moo tax man ne y a une passe d'armes entre ku nekk dafa mel ni da nga sa côté hmm. ma ne ñun dañu doon xaar ci intellectuel yi ñu ñëw indil ñu <coughs> d'un côté comme de l'autre